tax a jóg mooy situation bi nu mu demee muy Covid 19 bi nga xam ne vraiment ku ne xam ne ni dafa affecté artistes yi nga xam ne ñu nekk ci Sénégal yëpp. donc mu nekk benn situation boo xam ne ñun muñ nañ ko je pense qu'on ne reste dix mois yoo xam ne euh, defuñu dara et ñu muñ ko je pense que ñu ñoo gënoon discipliné noppi ko. ñu xeex ci aussi def ay sensibilisation xam nga euh, def ay clip def ay morceaux partout. pour que population bi xam ne que ni feebar bi feebar la boo xam ne bu doy waar. mais nag dañu toll ci jamono boo xam ne aussi mënuñu continuer vraiment euh, euh, toog bañ liggéey parce que ñun ay jeunes leen mais quand même euh, dañu bëri ñi nga xam ne dafa bëri ñoo xam ne ñoo ngi suñu ginnaaw comme ni ko suñu frère waxee léegi léegi Tafa ay jeunes entrepreneur lañ dañu nekk ñoo xam ne peut-être jëmm ji nii la ñuy gis ci écran yi jëmm ji nii la ñuy gis ci kaw seen yi mais dañu nekk ay jeunes yoo xam ne tamit ay entrepreneur la dañu nekk ñun ñu bëri dañu nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale guddeeg bëccëg yaakaar ci ñun. donc vraiment toog noppi bañ a def dara bañ a liggéey exercer suñu métier dafay doy waar lool lool lool raison pour laquelle euh, ñu ñu def conférence de presse bi nga xam ne euh, ginnaaw ba nga xam ne euh, ministre ministre de l'intérieur jël neen ay dispositions ak ki nga xam ne mooy gouverneur mu nekk loo xam ne vraiment. lu lu diis la su ñun artistes duñ ko jooy na mais quand dañuy kaas suñu ay droit parce que ñun ay jeunes lañ et ay sénégalais lañ aussi euh, je pense que ñun artistes rek ñun ñoo toog 10 mois ci dëkk bi liggéeyuñu donc loolu c'est pas du tout normal et que pour man solution am na lépp loo gis ci àddina solution am na war neen mën a euh, adapté wu ak situation bi euh, def lu ñu war a def def suñu ay soirée Euh, topp lee norme topp li nga xam ne mooy mesure barrières yi et ñu war a ñu def carrément li nga xam ne mooy suñu ay soirée et kenn du ci loru respecte tous les normes yi nga xam ne moom leen digle euh, plan bi nga xam ne moom lañ war a mën a teg ba nga xam ne suñuy fans dinañ ñëw seetaan seetaan suñu ak euh, sécurité donc je pense que norme yaa ngi fii balaa ngay dugg soirée war nga mën a takk sa masque utiliser sa gel nga respecter euh, les un euh, un mètre yi nga xam ne moom nga moom la ñu wax c'est bien possible donc pour man organisation la rek organisation moom ak solution parce que pandémie bi kenn xamul kañ lay jeex kenn xamul ndax 2021 bi lay jeex kenn xamul ndax 2022 ñun on est là ay jeunes leen aussi dañu war a liggéey parce que mooy li ma expliqué léegi léegi dañu yor njaboot yor ñi nga xam ne dañoo nekk suñu suñu ginnaaw ak leneen ak leneen ak leneen leneen ñun ñooy ay porteurs de voix leen d'accord li ñu waroon def yëpp def nañ ko mooy que ni on man par exemple bokk naa si ñu njëkk génne ay single def naa ko en pulaar def naa ko en wolof ah sensibiliser 10 mois ñu toog muñ ko. et li ma wax mooy que ni bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a discipliné aussi toog ñu benn yoon ñaxtu ko mais quand même euh, am na benn moment boo xam ne tamit bu ñu euh, dafa mel ni comme si euh, dañuy dañuy jéem a effacer en fait parce que loolu loolu man loolu laa ko mën a jàppee. effacé lay doon parce que bu fekkee dem nañ ba benn moment xam nga euh, vraiment gars yi bëgg a tëj lépp day xaw a doy waar lool lool lool ci ñun donc raison pour laquelle vraiment ñu ñu ñu ñu ñu yëkkati suñu ay kàddu tey pour wax ak ñi nga xam ne ñooy euh, askan bi. di jëlal si nuyoo bi président Macky Sall suñu président suñu lépp di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan kilifa diine yàgg fi si barke borom Touba ma fekk sama mbokk artistes yi Sori Ba. ak kan ñu doon sumay frère ñu baax ak Moustapha ah man nag wax dëgg yàlla damay métti lu li ndax dama doon seul artiste boo xam ne tamit xale laa te ndaw laa nekk ci yoon yor kër teel a yor famille ah utul sama yaay kër sa Touba yóbbu ko fa ut sama samay tout tànk yóbbu leen Touba sama yaay ñu den ak sama yaay te lu fa am rek sama poos lay génn te koy def te su ma koy def fan si ñoo may jox li tax may yónnee sama yaay Touba xaalis ak lu ne ak dépasse kër ga fii ma nekk ndakaaru gi nekk fekk sama soxna may aw ma luyee te damay fay luyaas chaque weer añ bu jotee fii maay joxe te woy ak fan si ñoo may jox tax may mën a joxe añ di joxe reer di fay luyaas te nag doon sel boo xam ne nii di tëgg tout le temps mercredi lundi dimanche ah kon chaque jour nga nekk fan di la dooleel kon ñun liñ mën liñ bëgg liñ bëgg rek mooy si ne mu mett ñu mu doon loo xam ne way la nga xam musique Saint-Louis ñu woy ñun loolu la xam man caat loolu laa xam te mos noonu loolu day am ñuy ñaan di tàllal loxo président bi di tàllal loxo ministre yeeg ñëpp ndax ñun way la xam bu ñu wayut duñ mën a joxe dépasse duñ mën a fay luyaas man caat Sowri Ba ak sama mbokk artistes tout le monde way la nga xam te bu ñu mën a fay luyaas duñ joxe dépasse te li ñu war a fay duñ ko fay te ñun way rek la xam te bu ñu wayut mën nañoo génn fi ñu dëkk dëgg kenn du ko nëbbu te dëbb kenn du ko laax dëgg kenn du ko laax kon nag man li may ñaan mooy si ne ñu ñu ñu respecté mesure barrières yi xam am na solo ndax ñu bu ñu tëgg soirée dañuy takk suñuy max te suñuy fans bu ñëwee dañuy takk ay max ba dugg ci biir boîte béggee ku ne ñu bi si jàmm ñi ñuy dooleel ñu mën a yóbbu suñuy kër dara waaye bu ñu woyut duñ mën a am dara ndax ñun voix la ñu yàlla jox ñu si sargal suñuy xarit sama ñi may àndal sax dañuy yaakaar ci man tey ñuy ànd ak caat waxuma la musicien yi rek yaakaar ci caat ñi may tëggal dañu yaakaar ci man démb ci mujj sama kër dama toog yoruma sax mais ku ñëw damay jël li maam rek bokk ak yow su ma xëyee taqale ak samay nit kon li ñu ñaan mooy tàllal loxo pour mën a woy mën a jouer guitare si jouer clavier si jouer ménagères yi nga xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw ñu jàppale mën a gis seen bopp ci yëf yi ndax yëf yi daal metti na daal man daal loolu laa mën lu may wax metti na di tàllal loxo di ñaan ñu may ñu jouer ndax ñun jouer lañ am way lañ am guitare lañ xam clavier lañ xam sabar lañu xam aar lañ xam te way lañ xam maa ngi ñaan daal si barke Serigne Touba man Thiat Seck di tàllal sama loxo di ñaan réew mi di ñaan président Macky di ñaan ñi topp si ginnaawam ñëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér ñu dimbale ñun ñu nekk ci liñ nekkoon ndax way lañ lu solo la waaw man wax dëgg yàlla li may wax mooy si bi couvre bi amee ñëw nañ sama kër indil ma xaalis ma ak samay musiciens yi li ñu ma joxee moo sama musiciens yëpp comme si li ma njëkk laaj rek ma xaalis bu bari dëgg yàlla ma woo samay ku nekk ma defar sa tabaski ñu defar suñu ñoom eh, prési président Macky Sall ak ñi mu àndal ñu defar suñu tabaski wax dëgg yàlla jamono jooju ndax nit moom waxal rek ndax fi ñu ko bette sax daal tombé woon ak tabaski sama musiciens yi may àndal ñëpp daaw de guitare tout le monde ñu may àndal ñëpp am si ñëpp am ci kontaan ndax fi ñu ko joxee ma kontaan si ba nii may waxee mu doon bu rafet ñëpp kii ñu tëgg sabar abdu tout le monde ku ne ma jox la ba sama staff sax dama leen a joxaale ñi nga xam ne ménageurs yi dañ see am wax dëgg yàlla loolu moom am naa ci mbégte kontaan naa ci xam nga beneen question bi comme soirée yi soirée ñun soxla comme soirée man mosuma gis ku tëgg soirée ba ñu ne nit corona na si biir soirée mosuma gis wax dëgg yàlla waaye corona dafa am ci réew mi dafa am mais man suma gis Sowri Ba di tëgg ñu ne corona am na soirée am Thiat Seck di tëgg ñu ne corona am na soirée kon nag dañ fiy jaarale amaale jëlaale suñuy mesure suñuy xam nu ñu koy waxee mesure barrière ah am yooyu ñuy yor di ko tiimale nit ñi tamit kuy dugg sax ñu teg ko ba xam ah. ndax am na solo comme affaire yooyu ñuy teg nit ñi si porte bi tamit jar nañu koy jënd kuy ñëw booy dugg si ta booy dugg si bunt buwaat bi nga takk sa max ñu teg la affaire bi boo ko amul booy dugg tekkil sa max ndax dafa tàng boîte dafa tàng dëgg kenn ko nëbbu biir boîte dafa tàng booy dugg ñu teg la affaire bi nga takk sa max ba mu leer na amoo ko ñu bàyyi la nga dugg boo duggee tekk sa maxi def sa poos ndax boîte ba ñuy wax li ne kenn dugg ci boîte di baal naan da ngay takk maxi di xëm xam nga corona dañuy ñaan mu jeex ci jàmm ñun daal man li may wax mooy ñun sonn nañu bëgg nañu jouer ndax dañuy joxe ay dañoo am lu ñu war xam nga man li programme yi amoon si décembre bii dafa bari waroon naa dem Mbàkke waroon fii fii Waly sekk tëgg sama rakk ji Pikine Batara xaw ma te daa rëy dama ko fay joxe fa avance ba pare ñu joxeel ma fa avance luyeel ma ko xam nga du ñuy waxtaan dañuy waxtaan rek li fi nekk ñu lie Batara war faa tëgg maam Cheikh bu ma fayam suma grand suma lépp jël ma Batara jël ma soir soir yoo xam ne ni si décembre bi woon daa bari woon ma waroon koo tëgg yooyu yëpp dañu ko waroon publier sa télé kon am naa loo xam ne nii mayit fi ne nii gisuma lu ma xam jaaxle naa te metti na daal fi ne daal ñu ngi ñaan si barke sëñ Tuubaa di joxe loxo ñu dimbali ñun way lañ xam man way laa xam sori baa way la xam demba mii di doogaño sama xarit la xam ñu ngi ñaan ci barke sëñ Touba ñu may ñu dellu ca lañu nekkoon te fonk mesure barrière yi te respecté ko loolu rek am lu may wax maa ngi jégalu. bor salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di jégalu amaan na ay ndaw lañ sax ndax bu gaa yi waxee rek yaakaar naa ni wax nañu lépp maa ngi nuyu Famara bu baax di nuyu mustafa di nuyu Demba mon frère. Thiat Seck suma frère nit ku baax xol bi daa rafet ak kan Diallo mi fi jóge di gërëm waa Lamour kafe bu baax a baax ñoom ñu ñu permettre ñu réaliser lii di nuyu njiitu réew mi bu baax a baax et que di nuyu aussi maam Cheikh sunu grand frère waa jëri ngoone yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu staff beeg manager yi tey li ñu fi dajale du xuloo du xeex du defante yaakaar naa ni yàgg naa ko di wax tey amaan na problème bi fi mu njëkkee mooy ko ñun amuñu industrie musicale bu ñu jàppale bu ñu dooleel parce que boo demee partout dans le monde tey doo gis sax artistes yi seen artistes yi di def cri de kër parce que am nañu industrie musicale bu leen jàppale il faut état bi xam ko ni ñun ñooy image yu Sénégal ñun ñoo yor Sénégal parce que ñun ñooy culture ñun ñooy yegg fu ñoom foo xam ne ñoom ñu fa yegg parce que attention du suñu famille rek du suñu staff rek du suñu sécurité rek du suñuy musicien kase dafa am ay maire yuy boot seen doom yoo xam ne bu ñu lekkee ñun ñoo tax guddi 4 heures du matin 5 heures la ñuy kar suñuy buntu soirée ñun dañuy tëgg fay suñuy musicien fay suñu staff fay sunu sunuy sunuy sunu suñu sécurité gën a taxaw ci bunt bi séddale nit ñi seen dépense ñi maire yi taxaw foofu ak boot seen doom kon ñu ngi participer ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen taxawul foo xam ne ñoom état bi yeggaguñu fa parce que jamono moo dem ba toll foofu donc duma toog ma ne lii laay perte wala lii laay perte li ëpp solo mooy ñu xam ne musique métier la tey lii ñu def mu ngi mel ni nga fekk benn société bu taxaw nga tëj ko <laughs> ñaata employé ñoo fa nekk bëri na société lañu ñu tëj parce que ku ci nekk fii mi ngi fay sa NINEA am nga NINEA comprendre nga tu ton label tu tout man dama yor suñu studio dama yor ay ingénieur de son yu may fay dama yor ay musiciens yu may fay dama yor kër gu lumb yor ay nit yu nekk sama ginnaaw ñoo xam bu ñu xëyee lekk man la bu ñu xëyee nan man waxuñu sax ñi nekk en dehors ci bit mais sa koñ rek tey boo ñëwee sa kër boo demee kër caat wala kër dem nit ñi dañuy ran indi ordonnance dépense te ñaanuñu yàlla lekk bàyyi doomu aadama yi tey sa dépense loo am am 5000 francs di nga ko xaaj nga nga nga nga jox nga joxe lii ci biti li ci des nga jëm ci sombi ak say sa njaboot on se dise la vérité kon nañ ñu dimbali ñu jouer jouer bi nag beneen côté ñun artistes yi ñu xam ni vidéo yi tey lu ñu fi wax tamit après vidéo yi day génn parce que mënuñ def soirée chargé ko mu fees tamit tafa comprendre nga ci fi réew mi toll tamit feebar bi am na fi kon tey buñ ñu bàyyee ñu tëgg ñun tamit nañu respecter mesures barrières yi ne kat nañ ci wut dépense mais pas lu bëri parce que duñ la may tuuti nga jël lu ëpp parce que tey mën nga def soirée mu guñu guñu guñu ñu def vidéo yi gis ni nit ñi takkuñu pas masque ci biir te nit ñi ñu ngi bur ñu ngi dankaloo ñoom tamit dañuy jëlaat seeni précaution parce que bi feebar bi amee ak léegi ñu ci dépensé ci xaalis état bi dépensé bëri na pour suñu wér gu yaram ñu leen ci remercier bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax a baax mais tamit ñu xam ni ñun société lañ boo xam ni comme yeneen société nit ñuy xëy fonctionnaire ñun tamit noonu la ñuy xëyee di dem liggéey suñu liggéey comprendre nga ñoom ni ñu leen utalee ay solution ñun tamit nañu utal noonu solution ñu ñu mën a tëgg ñun tamit en ñu xam ne kat defal nañu faveur ñun tamit ñu jël suñuy matuwaay jël suñu ay responsabilité loolu la woon ma jàll ci question bi tey Thiat kase bu ñëwoon wala Demba ñëw ñëwal na ñëpp parce que ñun ñëpp benn lañ du dëgg depuis dëkk bi ku ne xam na ni am na embouteillage waaye nag daa am lu ñuy fàtte am na ñoo xam ne sax amuñu paasu ñëw parce que liggéey wuñu am na ñoo xam ne ñi ngi xëy uti lu seen njaboot lekk wala xëy uti uti uti uti lu ñu fayee seen luyaas luyaas mooy seen priorité ka ñëw ko ñëw fii parce que amuñu paas bi